noppi leen noppi leen noppi leen noppi leen waa Grand <laughs> ah, Yoff waa Grand Yoff kontaan naa si yéen noppi leen noppi leen noppi leen ngeen dégg naa sànq ngeen ni naan président bingo président bingo dëkk la kay <laughs> bilaay eh am na yeneen paa yi ñoom paa ku caay yooyu ñu naan ñoom dañuy nekk ay ay ay ay président ñooñu ay paa lañ ñooñu ñooñu ñooñu ay paa lañ ñooñu nañ dem toog waay eh Grand Yoff Grand Yoff su ngeen ma falee Grand Yoff su ngeen ma falee waaye Grand Yoff kenn du gis suuf. Grand Yoff soo ma falee doo leen gis suuf ndax lépp laay karo waa Grand Yoff soo ma falee waaye du am deuxième ministre ñëpp Grand Yoff ñëpp premier ministre laa leen def ñëpp laa leen premier ministre waa Grand Yoff soo ma falee soo ma falee waaye xoolal boole leen ma falee fii nii pale bi fii laa koy indi si Grand Yoff président président président boo leen ma Grand Yoff boo leen ma falee ñoom paa Sanex yooyu ay paa lañu nañ fi jógee ñoom paa lañu ñu naan ñu naan dañuy dañuy nekk président ñoom du ñu nekk président waaye eh yéen ñëpp yor ngeen seen carte voté leen bingo bu Grand Yoff waaye Grand ma falee bu ngeen ma falee waaye benn salsaalaay yëngal salsaalaay yëngal Grand Yoff boo leen ma falee armeer bi dama koy jógee feene Yoff ndax dañoo sonn si armeer bi Yoff koy indi Grand Yoff boo leen ma falee Grand boo leen ma falee fii nii ñëpp ndekki ndekki ñëpp sa kër nen laa leen di jox nekk ndekki nen. Grand Yoff boo ma falee boo ma falee waaye na paa yi dem waay wuy ma maa ngi leen di jox rendez-vous le 15 dañuy defaat meeting si kontaan naa si yéen trop président président président. Président Président Président Président